asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yi ñuy suivre sur wasaare lamb wasaare TV ah wax dëgg yàlla tey nag ah, ñu ngi fii ca euh, mën nañu wax ni Kër Massar ñëw sees koo xamante ni champion la ndaanaan la papa la lépp la ndax nee naa leen lamb da cee am cër nekk na ci lamb encadré ay xale ba nekk ci manager muy ki nga xamante ne moom mooy per Ali bu écrit waalo Père bu àdduna ñu fas yéene waxtaan ak moom instant bi làmb fu mu toll ñëpp xam nañu moom mooy manager bu Lac de gis nga Lac de Guiers ay combat ni ko gars yi di waxee ak tamit moom instant bi ak écrit problème écrit ak instant bi làmb fu mu toll bëri yu mag yi ak xale yi nan la leen gisee Père Ali maa ngi lay nuyu. maa ngi dellu di sant yàlla di julli si yonent làmba moom mu li ma la joxoon rek làmba moom fu mu neexee la la mbës mi ñëwee la feebar bi ñëwee yàlla daal moo yor programme waaye ci ñu ma yor ma muy Lac de Guiers ak sama écurie moom wax dëgg yàlla moom ñu ñu ci préparation yoo xam ne tabaarakallaahu ndax am na fi tam yoo xam ne ñu doon wax Lac de Guiers ak Gris Bordeaux laaj dama laaj naa leen ko Lac de Guiers ñu naan Lac de Guiers yooyu yëpp doon nañ ko ay tuuti di ma wax combat yu mel noonu mais li am solo mooy yu mag yi ak mbëri ndaw yi dañu war bëre ndax noonu suñu jamono su may bëree Tyson man boobu Tyson day soog a ba si trois xam nga quatre combat la bëreegum boobu nu ñëw bëreeg man bëri naa ak moom ndeysaan jam si yàlla man fa dem bëreeg moom Touba Abdiol gars yi bëreeg ñë bëreeg kii mooy bëreeg Moustapha Guèye aussi Moustapha Guèye boobu. xale bu ndaw la eh, waaye loolu lépp duñ daan may sens xale yi parce que boo leen diw maa man balaa ngay mën diw da koy daan ba noppi. moo tax te muy ne Lac de Guiers 2 ak Boy Niang am na ñu bañoon sax si encadrement bi naan Boy kii Boy Niang dem nga feneen xale nangam nangam ma ne ko jëlal Boy Niang ba moom daan ko boo ko daanee boo ko daanee dootu la laajaat mbër mu ndaw il faut mu bëri ak mbër mu mag ndaxte ñoom Lac de Guiers bëri na ñoom Yékini ñoom Balla Gaye bari naa Yékini Yékini ñoom ñoo fi nekkoon bari nañu Tapha Gueye bari nañu mbëri mag fi nekkoon yëpp bari nañu ñoom tey lu ñu daan lu ñu léegi nag la problème mooy xale yi ñoom saa keese gi ñoom Boy Niang ak ñeneen ñu ndaw ñu mel na ñooñu wala ñu rek wala ñu bëri jëg VIP yi seen bopp VIP yi ni ñu bëree xale yi ku si mën xale du ma ko daan ko xale bu doot la dëkk doot la laaj waaye nag diw maa ko mën te bëriwu leen yooyu affaire ragal la rek ragal dongal du leneen parce que ku la wóor yaaka man ñu fay la xaar bu baax may daa bëri moom daan ko taxawaat. amoon na sama benn am financier la laa daan wax yàlla nga yàlla yéen mbokk njaay bu waxee ba nga daal kuñ la ku jóge sa kaw ga soo ko ñëw rek mi joxee mi la joxe jël ko kooku moo gën neex a daan ku yeewoogul xëy daan ko balaa mu yeewu rëg-rëg mi tey ku bañ bëreeg moom naka ragal rek waaye xam nga ni ñëpp mën nañu bëreeg moom. rëg-rëg mën naa bëri ñu ci kaw. mën naa bëri ñu ci kaw kay. ñu ci kaw ñëpp man kay du ma tànn benn diw bu naan moo dafa bëgg a kii waaye. rek rek mën na bëre ñu si kaw ñëpp. mais père ñu si kaw Tapha Tine moo fi nekk. waaw Balla Gaye. waaw Lac de Guiers 2. waaw Bombardier. waaw Gris Bordeaux. waaw ak kan. du ñu ne wax diggante moom Bombardier. Ah. xam nga doon nañu ko wax. Ah. doon nañu wax diggante euh, kii rek ak ak Bombardier. waaw te Bombardier mooy ndey mooy mooy mag bëri kay. ku war bëri Bombardier kay war nga bëri ñëpp. kon Bombardier rek jaadu na. non ñaata la si bëri bëri la làmb la Baboy su muy bëreeg bombardier Reug Reug moo ko ëpp Baboy muy daan bombardier si kes boobu dina Reug Reug toll moom Baboy tolluwu ko man Saaloo moo daan moo tax ma bàyyi làmb te boobu ma boobu Saaloo xale boobu maa ko budal fukk yoon juróom bu ñu ma waxee mu ñëw daanu su daan la bàyyi làmb làmb doon la làmb dafa am problème mooy boo xam bi bis boo bëriwul rek yaa ngi perte làmb commencé la rek bis boo liggéeyul perte nga ko at boo defee ade balance yaa ngi perte ndax jamono doole bu sa doole jeexee sa làmb jeex kon nekk na mbëri mag yi yeewu xam ne làmb ji dafay jeex nun ñii tey ko demee ba balaa nga jóg ñu lay yëkkati te nun doole ñu ne amoon ñoo amuñu genn wàllam kon xam nga bëri da nga koy bëri mu jeex. ku ne yéen a ëpp doole bëri yi ñii ni. du doon seen du bokk na woon sax far. ndax non lu nu yàlla lu yàlla bindoon ñoom bindu wuñu ko xoolal Balla Gaye Balla Gaye 2 ak papaam est-ce ñoo toll. ok moo tolloowuñu man sama doom yi ngi bëri est-ce sama doom toll na man. waaw le moom mooy yàlla kenn ku ne mu mujj ñëw gën tuuti si nga léegi ñoom ñoom ñaar ñooy jokk duñ jot duñ toll ñoom Balla ak ñoom rek rek toll ñu yàlla mooy bindoon noonu ñu mujj judd rek gën tuuti kon nag làmb làmb la rek ko daan wàcc.

te bu la bu la promoteur contacté woon ne la Lac de Guiers Reug Reug da nga koy jël. avance bi laay xaar bu ñu fayee kay moom lu ma jaral moom du sax tàggu Lac de day liggéey bu jeexee bu jeex daa rek rek ku daal bu rek boo ñaan daa ku bu rek boo ñaan daa bañ mbéy rek rek moo daan Elton Elton moo doon ñoom Lac de la. ok ñoo doon départ doo ñoom Balla Gaye ñoo kon jaadu na. <coughs> jaadu na bëri war ñoom ñëpp war a mën bëri war nañu mën bëri. mbër mu ndaw mbër mu mag mu ragal mbër bu ndaw moo fay nekk daan doo moroom ma def fi dara ak nanga mag naa mais def fi dara daan ko mu toog boo daane kay mu daal itam toog dootu la dëkkat dootu la laajat nga wuti keneen loolu loolu laa xam làmb ji dafa jeex rek te fi mu nekk nii yàlla fi yàlla jële feebar bii ba làmb ji dellu si waat te nag làmb ji war na dellu comme ñu ngi bàgg a bàyyi football yeeg yeneen événement yi nañ bàyyi làmb ñëw yàlla dana jeexal kii bi léegi bu soobee yàlla ñëpp dox seen soxla ci ñoom rek instant bi ñoom ñooy bëre ndax gis na kenn ku nekk bëri nga 2-2 2 mooy ki daan na ki daan na kii deux fois Eumeu Sène daan na Balla Gaye fois kii euh, kii di euh, Modou Lo Balla Gaye daan na ko deux fois Modou Lo daan na Eumeu Sène deux fois Lac de moom moo ci xaw a amul ndax moom moo nul ñu gis ni Lac moom moo ci bëreegul roi des arènes moom la Eumeu Sène amal revanche ñu gis nii yow yow sa làmb Euh, ouverture bi dafa xaw a des comme combat Lac de Guiers ndax Lac de Guiers Tapha Tine gars ko doon wax mais bëree cun ngeen wax ko parce que Tapha Tine bëgg na Lac de Guiers du ko laaj du ko laaj mais buñ ko joxee par mais est-ce que réellement yéen combat yooyu bëgg ngeen ko. combat bu ñu ba du ma tàggul Lac de Guiers dama la nga damay taxaw combat sàngam rek mu ne affaire ah bu la doyee day bu la doyee aywa jox ma jox dafa ma jox cër boobu nag wax dëgg yàlla Lac de Guiers dama la ma koy sant di ko ñaanal bu mu téye dafa ma jox boo xam ne bii amul benn mbër mu ko jox ménager am boo waxee mu ne yow daal mu doy la rek doy na ma ku la wax loolu nag moom wàcce na waaye man moom dama xam ne làmb gi dafay jeex te at bu ne sa dool day gën di wàññeeku lu mu yàgg rek sa dool day gën di wàññeeku moo tax su jotee bëri ko rek mu jeex bëree bëri bëri bëri waat nag wala man man mi doon bëri nag tabaagee bëri na ñeenti yoon ma moom bëri naag ma fa dem juróomi yoon bëri naag tubaabu jër deux fois nag yàlla yërëm yal na yàlla yërëm ñoom ñëpp da duñ doon bëri at mi nga daan ma déwén ba man lay jox ma revanche nga jox ma waaye léegi mbër moo ko def mbër mi boo laxasee daan dootu na nga bëri yow dafa naan la man waaye demal seeti keneen na nga maa daanoon na nga man naa ti ji liggéey la rek liggéey la rek li ma wër daal mooy nun daal la dëgg daal bañu fi kenn ku ñu ko jox mu bëreeg moom moom mu ngi feebar am na waaye moom teewoo tabarkalla mi ngi si entraînement am nank nank guddi gi mi ngi liggéey liggéeyam ñuy préparé suñu waa suñu waajtaay ndax it ñuy ñaan si yàlla nag yàlla moo xam kañ la feebar bi jeex na ko yàlla moo xam kenn xamu ko yàlla waaye nag lu ngi ñaan si kàttanam ak dooleem mu dakkal ko ndax mbëri bëgg nañu bëri laam ji bëgg nañu mu del si waat nag. beneen mooy yéen manager yi dañuy gis ne dañ leen di dal. Ah. parce léegi mbër yi. Ah. ñu bari ne nañ yéen seen seen kii rek moo leen ñor li nga xamante ne moom mooy seen koppar. comme par exemple. seen pourcentage maanaam. seen pourcentage seen 10 pour cent. waaw seen 10 pour cent la. manager dama la toppatoo mbër mais ne yéen 10 pour cent moo leen ñor manager toppatoo ko mais yéen manager yi est ce que léegi yéen manager bu njëkk ba yéen ni ngeen doon manager yi ak tey am différence parce que mbër yi dañuy coow waa nee nañ yéen rek 10 pour cent rek moo leen ñor. mais xoolal pour cent ñaar fukk nga génn si ñaar. wax dëgg yàlla ku ci coow ak mélancière la mu ngi des ci combat ah xaw ma yeneen mélancière de waaye man sama bopp laa waxoon man sama mélancière laa am ba mu ne ma bàyyee bëre mooy bokkal Ndiaye yàlla yàlla yërëm dama ko daan wax naan boo ma tàggu combat bi li nga fay loo jaral bu ma tàggu 10 pour cent la woon 10 pour cent woon boobu ñun fu ñu bëree boobu ba 10 la woon nga ne bëree ba noppi bu sa léegi ndax léegi da nga jël xaalis bi ñëw indi ba si ba si kanam mbër mi ngeen soo kër kër waaye suñu mélancière jëkk ñoom ba xaalis ba dugg balaa ak si mbër mi jël nañ seen 10 pour cent bu yàgg bu ñëw jox seen su xaalis yow yaa xam nooy def mais mais menacé la muy daj menacé mu ngay wuti seen 10 pour cent yooyu bu génnee 10 pour cent sëg buntu kër ga balaa nga këram te la ñu xool quatre vingt dix quatre vingt dix quatre vingt dix bi quatre vingt dix pour cent ba di nga ko xool de dix pour cent bi la ñu xool ku nekk de la carte naan waa cent wàll cent wàll cent wàll boo saa ne da ngay dem mu mujj nga dem bu dee sama saar gi da ngay dem mu mujj di jëlaat sa xaalis boobu nga liggéey. di ko dugalaat ci affaire ci combat bi. ok kon yéen kon di ngeen jël seen xaalis di ko dugal ci bi. ah bien sûr ndam lu bëgg. victoire lu ñu bëgg booy seetlu moo tax xam nga ne kuy am sa mbër bu doon sago sa mbër mooy nekk roi des arènes kenn du ko mën daal. la la dëgër la dëgër benn defet la fi euh, ah, laa wax. Ah. Eumeu Sène moo ko fa mos daan. Eumeu Sène moo ko mos a daan. moo ko mos a daan waaw. te jël ba daa tax suuf. te jël ba tax suuf. waaw jël ba tax suuf. ndax su ma ko laajee rek këppee boobu baa ngeen suuf waaye su koy waxee laree dafa ne ma bàyyil ko mosuma daanu bàyyil ma daanu ko ñëpp. ok dafa gëm yàlla moom moom mun daal bàyyil ma daanu comme ñëpp kenn ku wax dina laal dogal mosul daanu mosul daanu. Mhm. léegi daal bàyyil ma daanu ndax dama bëgg waroon naroon bind recours mënoo dara bàyyil ma daanu comme ñëpp. mais dañ naan moom moo gën a tële ci mbëri Lac de Guiers moo gën a tële. mais ku tële neex daan ni nga ko daan demaa tële bëre ñëw daan ma xam nga Moustapha Gueye benn bés du ñu naan bu ñu la bu ne bu ne bu ne Moustapha Gueye nii Lac de mooy champion bi yow boo attaqué mu daan te yow mënoo ko daan nga ni moo gën tële kan ku tële bëre ku ku tële ku bëre nan lay bëree bon ah yàpp yow kii moo tële bëre dafa tële bëre dafa tële bëre te mënoo ko daan ku tële bëre kay moo gën neex a daan. ah il faut ñu il faut ñu il faut ñu wax aussi il faut ñu wax ñu wax ñu wax ñu wax ñu wax dëgg parce que aussi njiit la ñu bëri njiit la ñu bëri fu ñu bëri ñu daan leen kii yow yow l'essentiel moom mooy la rigueur buy buy bëri buy bëri ak yow buy bëri ak yow dana calcul bërim ndax moom calcul na moo bare li ma la ko mën a mooy son mu ngi mel na sa jamono àllu C1 yàlla ko yàlla yéen mi nu waxtaan léegi kenn mënu ko woon daan. mbaa nga daan ñëpp ba nekk roi des arènes te mën ko daan dafa daan calculé bëreem du yàq bëreem laa dégg aussi du yàq bëreem ba nit mbooloo ñëwee sa gën sa gannaaw koy dañoo parax parax sa combat mbër fi nekk ñii am nañ daa ñett defet ñii ñeenti defet am na ñoo xam ne am nañ sept defet ñii six defet moom benn defet nga benn wàllu sa kii laa dégg daanu na combat mag am ma seen lu ngeen laaj gerte daanu na keneen ko bu sa des ba mu mën la wut ñu naan rek euh, euh, euh, décision arbitre bi nangam ak nangam. waaye à part ça diw daa mënul bëre daan ma uh-huh. loolu rek la jeex na. asalaamaaleykum. waaw oh, maa ngi leen di nuyu. monsieur li euh, man la Thierno Ba xaritu Ali la sama xarit la bon Lac de Guiers suñu la xam nañ ko bu baax mais li ñuy wax ci làmb su dee pour man wax naa ko ci suñu làmb Lac de Guiers waxuma ne moo daq bëri ci làmb ji de mais ci ñi gën a xereñ ci làmb ci la bokk. te moom du la may te loo ko may mu jël. Ah, mais pour man loolu mooy combattant. Euh. boo boo clé boo ko dugal mu génne ko loo ko tegal mu dindi ko te boo la ko tegalee doo ko mën a ñu ne cuune la. wala <laughs> dégg nga moom loo ko tegal mu mu teggi ko loo ko teg mu teggi ko équation boo ko indi mu résoudre ko tey bu la tegalee sama waa ji benn benn équation doo ko mën résoudre bu gën a ndaw pour bu mu problème bu mu la gën a mu tegal bu gën a ndaw doo ko mën. léegi ñu ne moom ñoom moom xëy ñu mënul bëri ana ki mën bëri bon ci làmb ji ah, pour man daal pour man sama xalaatu bopp te nag aussi ñun ay technicien lañu ay combattant lañu xam nañu d'accord bëri làmb mais xam nañu aussi lan mooy lan mooy sport pour man vraiment man c'est le meilleur c'est le plus grand la dàq bëri ci làmb jëkk yi ku la day day déglu su bëggee am xam-xam dafa lay déglu mais ku la déglu nu muy amee xam-xam xale boo si woosa ni nga kaay nangam nga nangam mooy yaakaar ne yow da nga wut ci moom xaalis wala nga wut ci moom dara te kenn ku ne la nga sutural sa kër yi yaa koy liggéeyal sa loolu la rek man boobu maa ne xale bu ndaw mais dama ñëw ci garage su di bëre apprenti di ma jox ñaar dërëm par juróomi dërëm boo am versement yóbbul sama sëriñ boobu xam nga boobu yàgg na dama maa ne xale bu ndaw moo sama sëriñ sax mu déggee ni maa ngi bëre dafa nekk loolu beetu moo ndax tubéy ju mu ma sax wutal mu moo wutalee tey su ma àggee bu ngoonee mu xotteeku ndax bëre léegi nag métier lañ ko def yàlla def léegi moo tax métier bu moo di da nga ñëw wut entraîneur wala nga def service dem am dem yëkkati poids am nga doole daal di ñëw ne ay ci làmb xeex bañ daanu la rek loolu ñu ñu loolu la booy xeexal moom làmb xeex xeex bañ daanu la rek ñemeel xeex li nga noonu nekk agressé wala noonu nekk bandi ñu wala dóor si làmb ji doonte kur bañ ñu fay la moo tax téeméer boo gis yu dugg si làmb ji ñett wala ñeent ñoo si at wi yow xool ci écurie écurie boo dem ñaar nga fa gis écurie boo gis ñaar nga fa gis wala ñett ñu génn ñu si des ñëpp du ñu mbër mi rek sa wala ma daam ba léegi noonu la moom moo tax ñu yàlla dool suturaal rek noonu la jàppale bëri am combat bëri mag yi am combat di beru ñu ne léegi ñoo ñoo yàq équipe yi loolu nan nga ko gisee am combat beru benn 6 mois benn 9 mois. bàyyi équipe ba. waaw waaw loolu moo mooy ñàkk ñoo ñàkk jox cër rek xam bu dee yow am nga mbëru mag boo xam ne bii yow leer na kii mu daj ci làmb doog a ci boo xoolee man sama dem na presque ay soixante dix xaw ma soixante yoo xam ne bëri sama carrière booy ñu fi ne léegi kenn ku si bëri amul si bëree vingt cinq combats wala vingt six combats. wala gën jaa bëri vingt combat ah te dinaa bëri nañ te boo da ngaa ñëw bari at mi nga bari si lu man cinq combat six combat te ñun magoon ñoom réy mu laaw yàlla yàlla yërëm Falaye Baldé ñoom ay cent combat toog naa Falaye Baldé di ànd ak moom di dem am fu ñu doon dem maa moom ak Tyson fu ñu doon dem moom mu ne bari na cent treize combat booy di nga mën bëreet bu ñu ko bëree dee waaw ah mu léegi moom eh, làmb léegi business la xam nga Tyson moo fi indi business lamb business lay def rek daa <laughs> am nu ñuy business ñu am xaalis rek. loolu moo ta ku am combat daal dem bitim réew. bàyyi sa écurie ba nga xamul dara nag ba nga mënagul dara nag sa écurie ngay toog ne si écurie bi di kër kër waaye boo demee ba mën dara ba commencé am xaalis. waaw combat dana dem làqatu yi bu mu neex la ba mu des combat bi des une semaine deux semaines nga soog a ñëw këpp këpp dem moo tax bëri bu neex doo takk bu jetti sama mbër rek ma bu neex sama mbër laa dëgër mu am génération boo xam te ne foofu xam naa sax la ñuy ki jeexalee hmm. muy boo xam te ne dañoo fekkante ku ci mel ni ah, nii ah. ah, mën nañoo wax ne ak ki nga xam te ne moom mooy Tyson Baboy ñu gis génération boobu noonu Bombardier laal na fii laal na fee ñu gis ni génération bii tamit bu Balla Gaye ay Modou Lo Lac de Guiers Eumeu génération ñaari génération yooyu xam te ne dañoo duggante est-ce que tamit am na génération am na maire génération boobu. waaw da nga jëkk làmb noonu la woon. Mohamed Ali Mor Fadam booba nun noo fi nekk di daan suñu biir mais léegi si bu ñu demee dem dem dem ba ñoom Taïsa Diop Taïsa bu ñëwee dafa tegle dafa ma ñëw daan ma daan Moustapha Guèye fekk Moustapha Guèye boobu suñu rakk la waaye boobu mu ngi mu ngi si boobu. dafa ñëw daanu su ma daan Moustapha Guèye Aliou daan Aliou Cissé bii yàlla na yàlla yaram ñëw daan ma daan Moustapha Guèye daan tubaab bu jot daan mor fa daan mbàng mun nu bàyyi léegi mooy tam sama xale ñooy ñëw tam ñoo ko daan <laughs> làmb noonu rek la boobu Yékini fi ne Yékini Yékini bëri nu maag moom mu mu mu euh, gaañ ma door ma ku ku bi euh, sama gémmiñ toj jox ko mu muy sama booy bu baax nag wax dëgg yàlla bu baax bu ma jéemoon dana taxaw nuyu ma waaw Tyson laa moom su Tyson du xale bu baax sama frère bi lu la si daj moom Tyson te ñaan yàlla na yàlla jàppale mu bëgg sa entreprise bi yàlla nga si yàlla jàppale vraiment mais ñoom ñoo ñëw dab ñoom ñoom ñeent ñooñu muy booba kii nu mu tëddee booba euh, Bombardier moo ñëw daan moo ñëw daan Aliou su mu daanee Aliou Seye tey ñëw nun tegle nun comme nun noonu noonu VIP yi nun ñëpp mu tegal woon daanu su bu mu teglee daanu léegi nag si la jël bayre bi moo tax mu amoon coow lu ba amoon. tey <laughs> waaw man daan na man. daan tubaabu joor daan euh, màng daan moon fa dem te boobu nun noo yoroon làmba ji ah léegi nag tool euh, suñu coow lépp nun ñeenti mu ramasse suñu coow jël ko moom kenn léegi nag bomba di jëm daan ko léegi dañoo yë jëkkati moo tamit moo tamit ñëw yëg dabu si let léegi ñëw il foo xale ñëw daan leen ñoom Balla Gaye ñoom xale yu ndaw yi ñoom Balla Gaye ñoom ak ñoom Lac de Guiers ak ci des ñoom ay Modou Lo seen rek xale ñoo leen di génn gi kenn ku ne sa rakk lay génn ci làmb gi làmb moom ku sa doole jeex nga toog lu sëriñ si ñaan ñaan ñaan bu sa doole jeexee nga toog làmb doole la moo football ku màggat jeexal ku màggat ñu ñu kii ok Père Alé ñu lay jaajëfalaat bu baax a baax parce que tamit da ciy baax parfois ñu amee opportunité toog ak yéen wala waxtaan ak yéen lii da ci baax ndax nee naa la nekk loo xamante ni chaque jour la. Hmm. benn gâteau la rek ñu profité waale ci di la remercier bu baax a baax a baax ci sa di la ñaanal jàmm ak salaam di la ñaanal wér ak wérle yàlla aar la. sàmm la ci barke Seydina Mouhamed kontaan nañ ci yow bu baax a baax. di di di dellu sant sant sant leen yéen tamit di ñaanal. di ñaan seen télé bi yàlla yëkkati ko ba fi ngeen bëgg ak fa ngeen yéene mu àgg mu àgg fa yàlla may leen seen télé bopp yéen itam yàlla dimbali leen ba lépp la ngeen bëgg seen programme yàlla defal leen ko te yàlla jàppale nu jàppale ñepp lii moom lu baax la parce que day tax euh, ñu fàttali ko ancien gloire yi ndax au moins bu ñu dee ñu ma leen génn bu ma tey suma deewoon tey boo léegi nga man nga teg si. yàlla yéex <laughs> a yéex. ñu ne kat man maa mujj waxtaan ak Père Aliou <laughs> Ah, yàlla moo xam. ñu ngi leen sant di gërëm. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal réew mi yàlla na yàlla def jàmm si réew mi. te lii nga xam ne moo fi nekk di mbas mi yàlla na fi yàlla jëlee. rek yéen def sallallahu alayhi wa sallam ko fi. waaw di ko bégee waat ah, bu baax a baax ko dañ koy ñaanal mu nekk suñu papa ah, dañoo doxantu rek wax dëgg yàlla sant ak moom te tàllal ko suñu micro ndax boo lay gisee waxtaan bi sax nga nekk ngeen xam ne nekkul lu ñu programmé parce que ñii bu leen di gisee rek dañoo war a waxtaan ak ñoom ndax nekkul ni à chaque fois lañ leen di am di ko ñaanalaat bu baax a baax yàlla mooy ko wér di ñaanal suñu papa yi nga xamante ne ñoom ñooy ancien gloire yëpp mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ñi fi nekkul yàlla xari leen aljana parce que ñii ñooy làmb wax dëgg yàlla kon kontaan nañ si ñoom bu baax a baax l'infatigable Bassirou Diouf di la remercier waat bu baax a baax ndax tey xam naa ne sonn nga dang dangi nga ba sonn fu ne aw nañ fa mais rek di la wax nag liggéey bi moom moo ko laaj parce que nit ndaw moom am na fooy toll rek da ngay liggéey te kenn ku nekk ca la nga nekk moom ngay tiitoroo di leen bëggee waa wasaare lamb waa wasaare TV ah yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy bëggee eh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy topp lépp lu ñuy def rek dañ koy def ngir yéen lépp loo leen bëgg dañ koy def parce que ay xale lañ ay ndaw lañ dañuy wax rek ñaanal lañ kenn mënul nag yàlla rek a fi mais lépp lu ñu mën dañ ko def rien que pour vous faire plaisir naan leen seen jigéen laa seen rakk laa seen xarit laa seen doom laa seen lépp laa di leen wax ngeen ñaanal ñu jàmm ngeen ñaanal ñu xam nga di accepter suñuy erreur bien vrai que ne ay erreur rek la ñuy def mais lépp rek pour bëgg leen neex moom moo tax ñu ngi leen di jaajëfal ah, di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak lépp loo xamante ne rek ñu ngi koy wax soit mu neex leen wala mu nakari leen rek loo xamante ne bu leen neexee jàpp leen ni lépp dañ koy def pour yéen bu leen nakkaree rek jàpp leen defuñu ko pour loo xam ne dañ koy def fi maa tey parce que tamit yéenay suñu lépp te incha allah fi ñu bëgg a jëm ak yéen gëm naan daal di ngeen kontaan bëggee nañ leen bu baax a baax wasaare kese Fatima kese Basi kese.